waa APR ak ak PDS ñi nga xamante ne ni ñoom itam lëkkaloo nañu fas yéene ànd si yile élection. waaw politique moom képp ku coalition bi jaaxal gan nga ci politique bi nga juddoo yàggul ku mu jaaxal rek bi nga juddoo yàggul gis naa nag euh, waa Pastef di leen diaboliser may ñoom muuru ñoo wax de dama leen di wax fon Pastef bi ñu koy créer bokkoon nañ seen statut parti. Mhm. ñu ne duñ mës a ni dañoo cité woon parti yi gënoon a mag jamono ba mu ne nii PDS nii PS ni AFP ni tous les partis politiques ñu duñ ko coaliser ba ca Sonko jugee ñu invité ko ci benn sit suma ma juumul Sénégal la xaw ma euh, ban télé lañ ko invité mu toog. Mm-hmm. mu ngi wattu ndel nii sol yére bu zone grand boobu mu ne biñ ko laajam egg si foofu sax mu ne d'ailleurs Karim Wade sax woo na ma mais jëluma ko. parce que moom moom warul mën a wax ak Karim parce que Karim mooy doomu système bi te moom buggul laalanteeg waa système bi kon ñoom buñ ñëwaatee ba coaliser rek c'est-à-dire que problème Sweet Beauté moo tax. mais loolu c'est un faux débat système ak anti système moom bu ñu xoolee. Euh, ci waxi Sonko laay nettali ni man moom <laughs> moo am actuellement euh, mënuñu séparer léegi moo tax man bañ defee coalition xam nga nu ma ko tuddee woon. coalition anti Adji Sarr laa tuddee woon coalition bi. ànd xeex aji saar la woon parce que boobu Sonko dugg na ci giraawaal yi mu ngi wut ñu ko jàppale politiquement moo tax mu nangu la mu bañoon mu nangu ko parce que jamono bu amatul pexe ñëw na ñëw na nag ba amaat na pexe mu delluwaat ca mëninam mooy Pastef seul d'accord moo tax politiciens yi d'une part Sonko da leen na da leen a nax parce que da leen a officiel jikko bu newul ci moom mm-hmm. Sonko nag bu ko sékkoon nag ñu mel ne man du leen mën a nax parce que boo ñëwee tey nga ne lii duma ko def boo ko defaatee moom dinaa la laaj di nga ma expliquer explication da ngay mujjee sax na ma booy garaawul gerte dem. Mhm. parce que dinaa la laaj lan moo tax nga bëgg a ñëw coalition parce que yow neewoon nga duñ ànd lu changé ci diggante bi c'est que c'est-à-dire loo def looy nëbb. lu changé ci diggante bi justement moom la Sénégalais yi di euh, posé. voilà lu changé ba nga ñëw jaxasoo moo tax waa Pastef yi ñaan non APR warul ànd ak non ñooñu moom waruñu wax loolu parce que ñoom seen li fondement seen parti moom xotti nañ ko bu yàgg ndax dem nañ ànd ak ñëpp Aïda Mbodj. maamu système bi la Habib Sy moom waxaale wu ma ko ñoo ñëpp ay ay nit di système ku mënta jël Karim Wade téléphone moom mënoo ànd ak Aïda nañ te dëgg koo xam ne ku téléphone Karim Wade sax sañoo ko jël en tant que nit ak nit waroo jël Aïda Aïda bàjjenu Karim di dañ ko fàtte léegi Habib nag nijaayu Karim la kon léegi koo bëgg a jël te ñoom parce que PDS bi mu ñëwee ci élection législative yi euh, présidentielle ne ñoom la ñuy yàppale mais dañ ne ànd ak man bari na militant PDS yu bare bare bari après man ak ñom ci lañ doxé sax fu nit xam jëm nak après non dañ na ñun parti bi lim wax loolu lañuy def ci la doog xamne PDS nak Amna na nit ñoo xamne mom même bu lu mëna xew ñok socialiste yi ñoyam mm. amna na ci ñoo xamne lu mëna xew seeni produit lañ yag yag PDS dañ jëm lu mëna xew dañuy dem PDS mm-hmm. ma ngi nuyu Diop lu mëna xew PDS lañ jëm ñu and ak jomay jomay gagne 54 léegi nak bu yakar bu 54 yoy cent na ne PDS contribué ci dara élection yi jëm lay leer mom bu manké bu manké 10 rek PDS la parce que 450000 voix la ñu. pure nak waxuguma ci ñëwaguma sax ci pire su ci 3 pour cent pire bu ci dara jugewul nak xamal ne lépp ñom la. mais élection présidentielle yi pire dafa demoon candidat bu waaw pire dafa demoon kan PDS moo demoon fee. pire moom dafa demoon am 3 pour cent. comme 4 pour cent. Mhm. moom moom 3 la moom mu ngi téye daayiraam ba léegi PDS moo yor quatre cent cinquante mille voix am yoo xam ne mu ngeeg moom ba léegi wala yoru est-ce a bàyyi di minimiser parti jàmbur yi quand même non non du ma ko minimiser pire moom trois pour cent trois députés lañu yàgg Massa député lañu euh, yàgg euh, mais mais pire lu mu fi def bàyyi mu continuer lu mu fi mën a dem ñetti député moom pire ko bàyyi dafa la xam naa pire bi bari naa fa ay xarit ci daayira bi ñoom lu sëñ bi wax loolu lañu wax daayira bi moom ñooy trois yi lu mën a xew moom jàppal ne opposition bi amagoon nañ trois députés mooy daayira bi ñu fidèle lañ ci mu Moustapha mhm. beneen bi ci topp mooy PDS daal moom fi mu ne nii mooy jouer le jeu c'est-à-dire après moom lu mën a xew lu mën a xew seeni militant dañ koy téye Amadou Ba day jël lii Macky Sall jël lii fi mu xam nga lu tax invite yi Amadou Ba Macky Sall détaché wu baax ci ñoom mhm. parce que doo am frustration da ngay bëgg Amadou votel Amadou bëggoo Amadou dem votel Macky mhm. militant APR yëpp ay voté moo tax man bugguma won Macky Sall and ak Amadou Ba parce que day indi parce que buñ jiitalaatee Amadou Ba mm-hmm. frustration day amal ta Amadou Ba bari na département yu perte ana wallahi dañu voté wul Amadou dañ ko sanctionner parce que leader yiñ fa tek ñom ñoo campagne wul Amadou Ba ba dernier virage bi ku ne di guéné seen nit di wax mais leader yi liggéey légui nak leader yi obligé nañ ñaar obligé na leen pour ñu liggéey mm-hmm. njàppaan bi di Ousmane Sonko bëgg leen di kidnapper di duggal ci kasso bi dina tax ku ne di nga xeex ba do am majorité moy ben ku nek say militant lañ la xéxal ba duñ la duggal kasso moy ñaar Amadou jaar na ni Macky jaar na ni day yombal carte gi bu Amadou tibbe fi Macky tibbu fi dara du genn geew bi nak te buñ xasse dugg assemblée mais APR andat ak Amadou Ba lolu du ben problème politique yoyu du ci dara yi du ci dara Abdou Diouf ablay wad guerre nañ di dugg di genn du ci dara Macky Sall ablay wad taxaw fi ni deum la xey nañ. daje kii Conakry ñëw nañ Masaalikul Jinaan bokk oto sëñ Mountakha ñaanal leen. ñu dem daje ji famille famille dem général bi la amul benn amul xoolal benn jafe Macky Sall reporté na fi ay élection ngir Karim Wade bokk. lépp xew na fi détaché wu Amadou Ba nag lu baax la Amadou Ba nag man su ma sañoon day dugg ci kuréel yu ñoom bugaan gële ñu def ko ñaari kuréel yu mag à côté yu ndaw ndawaan yi ñu investir leen ci dëkk yi def ak ñoom ay intercoalition parce que Aly Ngouille Ndiaye euh, fa mu dëkk am na fa doole. li ngeen gëm dëkk. mais lu tee gars yi yëpp buub xëppal ko moom mu raafale département de Linguère. bu dee bu dee Kolda Amadou Ba booy Amadou Ba ba fa nekk Abdoulaye Balde Dura mais Dura ak Moussa Balde foofu moom ñoo fa teg tànk lu tee ñu xëppal leen jeex na bu ko defee léegi Sonko fan la war a gañe bu rombee Casamance ak département de Mbacké bay boobu mu seeti leneen te lii man maa la ko wax nag. <laughs> d'accord. Euh, <laughs> buñ ko défé ni ma la ko waxee waaye leneen luñ ci def lu dul lii doon nañ seen bop bal dé de. parce que euh. Sonko naa majorité dugal leen ci kaso bi ñom ñëpp voté fi ay réformes yu ko neex cëppi cëppi presse bi nek ñëpp ay ne ci danger moom bu boba C'est vrai boobaa. militant you yu fidèle lañu am PDS moom seen militant dañoo fidèle Pikine nag Mbàkkeeg seen militant ñoom ñoom moom dañu mës a fidèle ci PDS gëwma ni lii dina tax ñu ñu détaché wu malgré que nag am na ñoo xamante ne instant bi non man la preuve euh, keroog c'est-à-dire politique moo mel noonu c'est ça temps yi bi ma leen commencé attaqué naan leen weexu leen ñuulu leen mais li ma jot ci message kenn xamul nu mu toll ay nit naan ma Abdou dimbali ñu ngir yàlla rek nga bàyyi baal ñu dimbali ñu nga bàyyi ñu parce que ñun dañ la sopp dañ la bëgg te nii nga ñu commencé attaqué moo tax ma ne leen benn am mom. ngeen ñëw ci ASC réew mi wala ngeen dem ca ñee nga xam duñu wax dëgg léegi nag Dieu merci njigi ci gën détaché wu nañ ci euh, malfaiteurs yi léegi ñëw nañ ci. mais Abdou yaakaar nga ni bés dina euh, ñëw. Ah, même tuuti rek ba yaakaar nga ni bés dina ñëw euh, APR ak Amadou Ba àndaat am nga ci yaakaar. politique. Hmm. non il faut que nous nous chapitre l'affaire des tonnes d'or convoqué euh, l'homme d'affaires Abdoulaye Silla, division des investigations criminelles Nous euh, régime euh, pour justement nous indiquer para poder gloriosar